di buddi sa cokk yi par ben te doo ci man dara asalaamaaleykum wa rahmatullah patriote yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare di leen jox seen <laughs> ci ngay xam ijo ijo gi nekk ci bugaan ak cuune gi nekk ci bugaan nee na day xas wali ci juuf bojan parce que nee na waali na daf ne comme dindi nañ parrainage bi dañuy fecc effectivement yaagin Dakar wala <laughs> yaagin Dakar wala parce que mënoo jàll parrainage mais fi ngay xamee ne Bougane cuune la dof la mooy nee na day xas eh, Waly mais ci lan la koy jaar parce que sécurité sécurité bi wali Diouf Bodian lañ ko dénk parce que ñi ngi minimiser sécurité yow xamoo lan mooy sécurité sa saa boo xëyee yow sooy dox yaa ngi ak sécurité sa télé boobu fa tek sécurité sunu kër yi fa tek sécurité yow nga ne yaa ngi xas sécurité nga ne yaa ngi xeeb sécurité yi képp koo xamante si nii yaa ngi def sécurité fii ci Sénégal boo ko yëgee ak boo ko yëgul jàppal ne Bougane tegu la fenn nawloowu la <laughs> cu ne nga yow sa campagne boo koy def ay sécurité ngay wuti looy def yaa ngi wuti ay sécurité nga ne da ngay xas Waly Diouf Bodiang parce que dañ ko jox sécurité parti bi loolu mooy modestie inspecteur impôt et domaine nekk nit ku jub de fa plus de vingt ans presque kenn mësu top topp ci luubal xaalis ñu dénk ko DG port mu di ko def liggéey bu am solo ñaaw téef mbon mbon ya nga xamante si yep yépp Macky Sall defoon na fa ak ñam andal mu ñëw di ko seppi benn par ben kooku mooy Waly Diouf bojang assurer sécurité président Ousmane Sonko di taxaw ci wetu ndaw ñi sa su ta am diplôme yi gars am waaye mu man sécurité bi laa choisir nanuma ko jox ma assurer ko toog ànd ngorom ñu jàpp ko tëj ko jàpp ko takkal ko bracelet mu def lu bëree bëree bëree bëri kooku nee nga moom ngay xas moo la ëpp parcours moo la ëpp jaar-jaar moo la ëpp ay diplôme moo la ëpp xam-xam aussi kooku mooy Waly Diouf Bodiang moo tax bugaan doo góor góor jigéen nga parce que da ngay nga mais le président Ousmane Sonko ñun roox di buddi sa cokk yi benn par benn te doo ci man dara